Eh, andesan ah ñak yoon wi ah ma ngi nuyoo di sant di gërëm sëñ bint dig la sax je ak audio bi nga ni bu ñu ko ko génne waaw ama amna wax yo xamni ni bu dé ak yéwénal man japp eh, na ni mët ta bañ a tasaare sama wax di may wax itam wàccuwaay bobu la ko jox waxtaan yi nga xamni ni andi nañ ko fi ma mel ni mm, ay ay ay gaaral da ciy am daal mel ni dañoo jàpp ni sun maam yi ana nag suñ Tuubaa da ciy am ñu ñu leen bëgg cadre daal xanaa bokk ba mel ni warees na caa a jàpp ah, di wax nangam ah, ba ak sikki naa kuñ ñeme naa koo saaga ak naa yi bandee fi nekk da ngay lii lii ligne bi ma ci dugg bi ci jëkk mooy buñ fàtte ni sëriñ bi ma ne waxu lisi jaana xusnal adabi yox fii jahalatan waqub xa nasabi te buñ fàtte ni wala fi nee nañu nopp mag borom bu dee seen maam daa nekkan ceddo daa dàqe di dóore nañ indi histoire seen seen néegub ndey ba ba ba tudd ca juróom-ñaar tudd seen néegub bàyyi ba tudd ca juróom-ñaar indi indi nak li indi won fi indi nak li indi won fi ndax kat man deg na fi audio bo xamni mom wax mom mi wax na ni waajuram wu jigen ñom ak wu goor dañu néewan dole ba neew deeloo ga waral waajuram wu jigen wopé amuñu lu ko fa mom wax na ko diko feñalat feeñalaat na and ci bu baax ba tekkeli bayam waajurum du jooy waajurum booboo ko tax a silmaxa ba moom lu mu am xam na ne suñ tubaab ko defal li ko defal lépp itam weesuwut waxtaane ko du ak dem daaray tërbiye du bindub kaamil du yor daaray alxuraan du nodd du jàkka di du ak yi limaane du jàngale xam-xam waxtaan la nga xam ci moom waxtaan la nga xam ci moom wax ji waxi wolof la mel na it ni man bi ma ko ci tàmbalee dégg ak léegi mooy bi Lamp Fall rajo Lamp Fall bi ñëwee te xam naa soriwul 2024 un 2004 jàpp 2003 jàpp 2002 diggante yooyu la. loolu nag nit ki diggante bu wuy nag nit ki mën ci am possibilité dong ngay suñu tuwaay yi nga xam ne ci suñu diggante la leen suñu tuwaay jaarale ñu di ci yaroo ñu di ñuy favoriser ku mel noonu di ko favoriser di ko dugal ci bâche di ko waxtaanloo. lenn ci suñ sëriñ si deko ko may paal di ko ganee di ko dugal ci seen bopp ba ñuy dugg ci avion yi di naaw aka aka aka dal aka aka am alal aka yori étage aka yor wata yu baax loolu la seen la doxan maa koy fàttali ba mun a nax na nga xam ne weesuwul li ci waroo ci ndab li waaye la taxan ñuy duy ndab la dara jugu ci ndab ya nag mooy nun ñii ak sun bàyyi ak sun maam yi waaw loolu nañ ko xam liggéey bi lislaam jee ak taalibe gi waxtaane ay ay waxtaan nii yàggu fi de yàggu fi nit ñi bëgg giñ bëgg suñ Tuubaa moo leen mandal ci suñ Tuubaa ba ko ci waxtaane ñu mën a faf alal jox la waaye yàggu fi de te yoon wi da doon dox nañ njëkk loolu dem kon nag ñoom ñi ciy waxtaan nii ba di ci garaate doon nekkee ba saa ñu doon ci marifa am kër nday xamuñu seen rak am kër bàyyi xamuñu seen doomi bàjjan xamuñu seen doomi nijaay lam yooyu ñor di ci wax di boolaate ay waxtaan di boolaate ay wax di dajalee waxi suñ bay jaxate waxi suñ Ibrahima Jom Masar waxi waaju baax loolu sukkandiku ci ba jàpp ni euh, leader boo xam ne bii sañ nga déposé looy wiññee ak loo naa nii nii loolu loolu yàggu fi dàqonte na lool itam ak yarub kuy taatam te bëgg am ku ci jàpp nag ni lii nu suñ tubaab di doon def loo mooy yar gone yi jàng alxuraan jàng jàng xasida jàng euh, dem tërbiye euh, jàngale xam-xam lépp nga def ko ngir yàlla jaxasoog suñ tubaab jaxasoog doom yi jaxasoog mag ñim yar ba ñu libéré le nga nga nga nga nga nekk euh, imaam imaam imaam ci ñoom nga xam ne fa nga ne sunna nga fa wuutu ku ci jàpp ne kenn moroomam kenn nga ci ñooñu taxawal fii wax ko ñu dégg balaa ren lii déwén ñu faj ko amul jaamaar la wax am leen ay teg baax te xam seen bopp ndax ñun xam nañ seen bopp Sëriñ Tuubaa amul daa daamu dawal jàpp amut ci yoonu murid sëñ Cheikh sëñ Adama buñ fàtte ni mbaagu la cosaanoo ay doomi soxna la man yoo xam ni sëñ la soxlaat na ko kon nag koo fi sa gis ñun ku sant fure nga ku sant fure koo fi sa gis ah, doomi soxna la ñun ni ñëpp sunu maam yi lislaam lañ daa xentu di ko toppatoo ba ni suñ tubaa ñëwee bu mu fàtte ni moo wax ne xiyaaruhum fil jaahiliyati xiyaaruhum fil islam ña gën a démb bi lislaam ñëwee ñu tabb ci ñooy gën nga la fi doon nuru diine la muy nuru nuru nuru lu solo na ko yoroon ñi ci tàbbi ci Sëriñ Tuubaa ñuy gënaat loolu waxi yonent bi daal na salaatu salaam adama gi moom bi mu ñëwee amul dara la ko Sëriñ Tuubaa bàyyiloo ca lam kon lam daa def baax na lii da koo gën Cheikh Rafal jal dammel la teeñ la waraan loolu ay tund tund yi sant Faal yëpp yëm ca war a yilif kenn xamul ñaata la ay doomi bàyyam ak doomi bàjjaram ak doomi lislaamam bañ ñëwee suñu tubaab néewu leen tuub leen dara ci la ngeen daa def dañoo continuer mu mu mu laabal lañ yoroon fab dolli leen suñ ma ñaaw sulle daaraam dañ daa dugg ci toolu àllarba ba mu ne doy de doy na mbaa ñarim mbaarum ma ñaaw am ba mu ñëwee suñ tubaab néewu ko la ka doon def soppi ci lii mbaalee sëñ sëñ mbiri na silla noonu la melan sëñ mbiri na sill noonu la malik basin si ak sëñ mor sin sëñ eh, mor eh, si sëñ mor xëri si noonu lañ melan sëñ mat jaw paxaa fi mu jaar ak suñ tuwaay yi ñëpp dégg ngeen ko sëñ ibrahima jóob masaar mi bi muy ñëw mënaan naa way mat lamin jóob dagana ay ma bayam la suñ tuwaay daal jëf leen teel ak sëñ sutu jaxate bayam la suñ tooy doon jëflantil bam aksi agsi daru asan ndjay sari hak haqiqa ni ko bolé suñ soye mbakke man ci mom lay digg ci lam ñam man bi mu làqoo suñ tooy daa jóg taxaw jon daat ne suma ciri dafa melni ne ab loxo da ci manki lolu suñ tubaa ko wax cheikh isa genn bir bu yag yag yag la na suñ suñ masaa mu jóg saam gént gi mu géntan yonente sallallahu alayhi wasallam nampal ci weenam bi mu yeewoo mu ngi soow ci ci gibiñam mi ngi ak moom yaata leetar yi ngërëm la ko suñu tubaab yaata leetar yi ngërëm la ko bind mun taxawuloo ko jumaay njëriñ bi moom ne ci mel ni ma ragal taqaddamu ci nga door dikk rek Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ nga xam ne moom saaka yàqlu Ibrahima moom laa ko moom ak yoonu mu rek xool lam àndal ci tër jumaan واهلا بانك هندي سوردا ابدا وتعترفك في الدار في الدنيا اخراك loolu lañ ko xam xool maa suñu mor jobbe gi xool maa suñu muy géej gi koo topp mu dellu ci lappe walla mu dellu si kee nu mu tudd matar nu lu seet ñi nga xam ni ñoom la suñ tuba doon liggéeyloo bi mu leen dee liggéeyloo ak tey ñaata mbooloo baaxee ci seen loxo ay mbooloo yi mbooloo yi mbooloo yi mbooloo ñoo baaxee ci seen loxo yoo xam ne ñoom moom mii di wax ku ca dajewoon ak benn sut ci kooko bu ko yónnee day sam kaw xelam te bu waxee mu tontu ko tari yi mu àndal mën nañ ko rey fees ko te duñ ci dem kaso kon nag bu ñuy addis wala ñuy waare nañ ko jëmee ca ñay ñay dajale mbooloo te loolu la yor leen nun danoo am te dul jóg danoo am lu nuy sut ëpp suñ ëpp suñ xalaat ëpp di di yónni ay mbooloo ñuy dem di jàngal ay mbooloo ñu dem ay yilimaan yu baree baree baree bari génn ci suñ loxo ay yilimaan yu jumaa yu baree baree baree génn ci suñ loxo ay fóodee ki kaang génn ci suñ loxo te bu ma ko waxee bu ma ko waxee ku ku doomi suñ tuwaay yor xam nga ne wax naa dëgg ñi weddi lu nga xamul nag man sama yoon ëpp ko ndax nit buñ koy wax day mat seere nit moom boo ko yàlla nappee mat seere ay waxam waxatu ko te buñ fàtte ni addu seen tuwaay saa dafa wax ne nit ki buñ ko xasee natt ci aw fen wala ku sàmm diineem ay waxam duutu sax suñu ëwoo wax na ko léegi yoonu murid yëpp war nañoo bokk dayaloo laaj kan moo sàcc kan aw nag ñu de ko dàq ba mu dugg këru njaareem gi yem ci suñ tuwaam mu feexal ko ñooñu wuñu ko waat Euh, jébbalu ci moom seex boobee maami kan la ci senegal wala moom mi ko xam mu wax ko nit ñi man mii di ko wax nag sëñ Elisa Ndiaye moo yaay Badar laa dëkk naqu jëg umma mi mi mi maami suñ suñ Abdou Samb ak waa umma ak Faturé mi maami sama yaay ak sama baay ñoo bokk benn ndey seen ñaari baay yi bokk benn baay ko ma topp la fekk ma monsieur Issa Dieng ma nga xam ne bii damel la di teeñ tàllali ngi kër monsieur Issa Dieng gi ci laa bokk kuy Fatma Mbaye mooy suñu maam ba Samba Ayba mi mi mi bàyyi Balla Maram Balla Maram mooy jur muy astandri mu jur mu sama Fatimatu Umma mu jur muy Gajaga mu jur Mor Loumé mi jur sama yaari maam yi ci ndey ak ci baay parce que jamono suñ fa lu ba léegi naa ngi te naa bu ma dee joyil ñi ñi dëkk tubaa xam ne ñi doon dara ci tubaa xam ne dox joyil laa la jóg ba dee suñ ma doon yore dama faa nekkoon noonu ba ba ñibbi jot ma ñibbi ñi doomi suñ tuwaay yar xam nañ ba xam loolu dëgg la dëgg man nag du ma dugg ci bënd ay sàmmar yeer wala may tur yalwaane ko yalwaan waaye nag ko xam ne bii da ngaa yor saw làmmiñ di wër di wax ci rajo ak télé bi télé yi ak ak ak yëf yi maam yi moom ak diine ji ak taalibe gi nañ ci génn moo gën de moo gën waaw bu ñu fàtte nag ni suñu laat moom suñu Tuubaa 1970 la wax ni mboolem ñii di wër di wax ci suñu Tuubaa nit ñi di leen jox ay benn benn dërëm ñu koy def nañ ko bàyyi ndax li ñuy wax suñu Tuubaa yurut xamuñu ko te la ngeen leen di jox xamuñu nañ koy def loolu si nar ko waxoon fii de 1970 dafa demoon ne ko man docteur yi dañ ma ni boo bàyyee wax dee wala nga wopp ndax waxay saab liggéey si kamil la ko jox na ko bu jeex kamil waatam li ñu fi li ay jamono yi si daam li ñu fi ay débat ak waxtaan bu ko fee souligné di nga tudd ay nit seen laaj leen yoon wi ñaar a wax ñaar ku suñ ko baa yar ci loxoom directement nga di fi jàngee di fi yaroo ba mon la ci loo loo xam mar koo wax wala ko fuñ ko ayar ci boppam ñaar yooyu bu xisee manqué nit ki bo waxtu noonu na xamul si suñ toile la ñuy wax ndax suñ toile li li nga ciy wax da ngay ni ci biir yoon yi ba mu xamal la ko firi la ay xasidaak firi ay laayaak waxi addis ak yëpp noonu ban koy xam boobu si bari dum jëmee yaar yoon diggante mu ko mala ko luñ ump luñ fabriqué ci bàmba ji xam nañ ko luñ ci tawil xam nañ ko lu ci dul dëgg xam nañ ko li liñ ci jaxase te ci xam nañ ko nit yi intérêt yi nga xam ne bii ci la ñu yor seen njël yor seen i dépense xam nañ ko ñun lekk xetax ak lekk mbuum ak ak tëdd ci coran ak moom jumaa ji lañ yemale sëñ Tuubaa xis na say ci nañ say ci ak bëggam ba mën a duñ cey jóg bëggam googu nag mënu dul may kersa ci képp koo xam ne bii yaa ngi yàq lim nuy def loo bu ma man bu ma ci war a wax dara wax lim ma def la wut ma moom mën naa cee màgg jumaa jaa nga léegi bu leen neexee ngeen dem toj ko tey dara du ma ko ci wax waaye liggéey lislaam bii ak taalibe gi ak yar murid bi ak liggéeyu maam yi nga xam ne moo seeni jotaay lañ toogee tey ku ci ku ci tab bi du ma ci nekk kenn wax nag defe naa doy naa yem tey defe naa doy naa yem nañ xam nag ni li ma njëkk wax nañ ko diglu bu baax a baax a baax Kajoor ak Bawal doomi soxna yi xam naa ko doomi yi doomi yi xam naa du ma gone du ma jaay yoruwuma ci ay gone ni ko ni judduwuma ginnaaw bu doon